bisimila mbokk internet yi dal leen a jàmm olof njaay ne woon na réccu day fekk jëf wees kii réccu jamono ji ba am lu ko métti loolu mooy Cheikh Gadiaga moom mi nga xamante ne yoon da koo tegoon loxo ginnaaw si nga xamante ne na ay kaddu yu ko ci derub soxna yoon teg ko loxo ginnaaw si nga xamante ne jóge woon na tukki coow la ak la co aju yëpp defoon nañ ci ab vidéo ci suñu site biile di lu tolloo ko juróom-ñeenti weer ci ginnaaw ginnaaw ay weeri kaso yu ñu ko tëj Cheikh Gadiaga jamono ji ma ngay jooy di réccu ak a ñaan njekk ngir ñu jëggal ko bàyyi ko moom Cheikh Gadiaga mi nga xam le ne réccu na lépp loo xamante ne mu ngi ko doon jëf dundinam ci biir kase bi moom moo ko yee te wax na itam ne dina soppi doxalinam ginnaaw bi mu nangu ne bépp ñaawteef boo xamante ne ñu ngi ko ko doon jiiñ ma nga ca woon tey ji waat na wàcc ne bés tey doon na beneen nit bu sa ñoon ñu bàyyi ko ba mu wane ne dëgg-dëgg moom Cheikh Gadiaga changé na fi mu toll ni nag soxna Momy kebe mi ko porte woon plainte ba waral ñu tëj ko ci kaso bi jot na retiré plaintam ba jéggal ko lépp lu mu ko doon toppee waaye teewul ba tey loxo yoon ma nga ca ndoddam tax moom Cheikh Gadiaga di sàkku ci yoon ngir mu jéggal ko ci fàttali moom Cheikh Gadiaga bi yem du bu njëkk ci yoon yi muy dugg kaso xanaa ñu rafet njort rek ci ne bile yoon bu fa génnee dootul jëf lu ko fay delloo li am ba des daal jamono ji mooy saagakat bile wala sax ma ne saagakat ba woon ndem tuub na di Cheikh Gadiaga mi ngi sàkku ci yoon ngir ñu jéggal ko ndax sonn na jaaxle na feebar na ndax méttit gi muy dund ca biir prison ba leneen li ko métti dëgg-dëgg di bedd koo xamante ne képp kuy jege ñaaleem beddi nga ko ko daanaka ay xaritam beddi ko boddi ko bàyyi ko coow li moom kese dong cundung mu ci naqar mi mu jàpp ne ñàkk jàngama ak woyof xelam moo ko ko yóbbee ndax ci biiri kàddoom mi ngi xamle ne ay nit ñoo ko doon jëfandikoo di nax ak a waaye ba bàyyi waaye ba daay wa tàkkee dañoo daw ba ko fa lii bokk na ci li tax mu jàpp ne gën naa yeewu te bis ni ki tey dootul delloo ci mukk ci lu ni mel dem na sax bay wax ne moom mi lee di Cheikh Gadiaga dina raxas loxoom ba mu set wecc ci monde média te bàyyeekook ñi nga xamante ne nii mooy journaliste yi nga xam ne loolu mooy seen liggéey waajee jàpp ne ne dafa juumoo amoon waaye lii ne dootu ko dalati ci àddunaam rëccu say rëcc rëcc aayul na am sax lu baax la rawatina bu fekkee ne da nga nekk ci prison bi nga xamante ne li ko tax a jóg mooy tegaat ñépp ci yoon waaye bu ñu fàtte itam ne olof njaay waxoon na ni jikkoog borom ba ca pax mare ndax yoon dana ko baal ndax suñu ko baalee ba mu gën dina bàyyi bépp ñawteef bu mu doon def yàlla rek a xam waaye li ci kanam raw li ba